Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah patriote chers patriote maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay di wax ne démb ba léegi maa ngi gis ay euh, message yoo xamante si ni na sëñ Assane bi mu publier ne day def conférence de presse ngir aw na ak doomu aada bi ñoo ànd kenn du ko bañal ndax ñun bis li nakari so su xasee ñëw ci ñun duñ nangu kenn ku nu ko bañal waaye su ñëwee ci yow duñ ku ko bañal waaye ñun ay patriote lan yow ab patriote nga boo xam ne ñun mën nañ koo firndeel te ku jël suñu ku ñu jox kaamil ñu tuur ci suñu loxo ne patriote pire nga ñi la man loolu laa gëm parce que dama ko séq ak yow bi ñu wootee information information yi ñu am ñun ku ñu ko defit aussi mu naqarinu parce que genre humiliation la te humiliation amul benn doomu aadama boo xam bu am jom nga boo xam di nga nangu loolu te man du ma nangu ku ma humilier parce que dama am jom man xam naa ne dama am jom quoi waaw eh, doomu aadama nag ñun ñi ñëpp kenn soxlawu ci post presque na réew mi dox rek mais bëgg nañ ku yëg nag ku du yëg waaw man soo ma cofee damay wadd te gëm naa ne sëñ Assane Diouf Lambaye koo ci cof mu wadd kon faw ñu delloo leen seen cër maanaam yëg ba yenn affaires yi suñ koy def ci Touba ñu mën leen koo yëgal parce que ay kilifa la ñoo xamante si ni ràññee nañ leen ci xeex bi am na ci yoo xam ne buñ koy def ci Touba minimum mën nañ leen ko yëgal parce que bu ñuy dem di xeex yi dañ koy yëgle bu ñu xeex yi dañ koy yëgle bu ñuy tëggi bool dañ koy yëgle bu ñu wootee pour pour ñu joxe xaalis dañ koy yëgle kon minimum am na ci loo xamante si nii respect la booy delloo nit ki. ginnaaw ba defoo loolu tamit doon ministre de la république Moussa Balla Fafana nga fekk ñu mel noonu foofu war nga leen a mën a jox benn cër même soo leen xamut te dama gëm ne Assane Mbacké Diouf Lambaye moom bu fekkee xamoo leen man damaa jàpp ne sa patriotisme dafa des parce que suivre parce que bari na lu ñu def ci combat bi bari na palaato yu ñu dem bari na ci tere bi foo xam ne wàcc nañ fa xeex kon en tant que ministre bu dee da ngaa fekk foofu nit ñi xamoo leen ba sëriñ ba moo la doon présenté di la wax ne ñii danoo yàgg ci combat bi nga xam da ngaa mujj naan leen naan ko ah bon ba nga defee ah bon ba pare yow Moussa Balla Fafana ba nga jógee sëriñ bi présenté la ñoom sëñ Assane mustafa Diouf Lambaye da ngaa jóg ne wëlbët sol say dàll dem sa yoon ba léegi nuyu wu leen te loolu bu yàggul président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko def nañ ab séminaire wax leen ne la immunité immunité loolu daf cee bokk. man fu nekk défendre naa la fa wax nga ci plateau ma rafetlu ko yëkkati ko ñu wàññi la ma kaasal la mais bokk naa yow di tafatin nga aju ma ma aju la waaw man moom <laughs> man moom boo ma ma aju la man damay di patriote dëggantaan moom wax dëgg yàlla man Seydina Ousmane Sonko laay roy nga aju ma ma aju la man nit ki fa nga toll ci man rek laay toll ci yow waxante moom mooy moom mooy ñu jox cër ñi nga xam ne war nañ leen a jox cër ñi nga xam ne war nañ leen a respecté te sëñ Assane Mbacke ak Diouf Lambaye ñun war a respecté lañ parce que bi laax bi tàngee bi mu dëgëree lépp ñun doon nañ leen gis sëñ Assane gis nañ ko mu wàcc terrain bi am ci boo xam sax wax waxi woo xamante sax ñëpp dañ koo ñaaw loo ne ko lii waroo ko wax mais fa am meram tolloon la fu dëgëre combat bi tolloon la te ñun ñëpp am na fu combat bi tolloon foofu ci ñun kon ñoo ngi sàkku ni nga xamante si nii ñoom la yàlla jox ndombay tànk yi ndombay tànk yi ñi ko yàlla jox ñu respecté ñi yàlla joxul ndombay tànk parce que yow mi yàlla jox ndombal tànk am na koo xamante si nii yàlla joxu ko ndombal tànk te sa ndombal tànk loolu def ci xeex pour sa ndombal tànk loolu nga jotu ci na ci koo xamante si nii bakkanam moo ci wadd pour sa ndombal tànk loolu nga jot ci am na koo xam ne ab tànkam moo ci dagg pour sa ndombal tànk loolu nga jot ci am na ci koo xamante si ni liggéeyam la ci ñàkk ngir sa ndombal tànk loolu nga jot ci am na ci koo xamante si ni prison la ci tëdd ngir sa ndombal tànk loolu nga jot ci kon humilité bi président Bassirou Diomaye Faye doon wax moom ngeen war am vraiment euh, Moussa Balla Fafana xamoo sëñ Assane Mbacke xamoo sëñ Diouf Lambaye ba sëñ am seen sëñ Abdoulaye bi la ko présenté kooku gàcca la war a doon ci yow man de xam naa la xam naa sëñ Assane xam Diouf Lambaye te projet bi ci boppam moo tax ma xam leen kon patriote yi jàng waxante dëgg